wala boo gi ne sponsor yi ñu téye seen loxo ci làmb ji loolu daal euh, je pense que li nga wax c'est extrêmement important ça c'est des très bonnes questions te dañ ciy tontu parce que booy seet làmb ak coow li muy am yëpp mais làmb yokkuwul est-ce que lamb dafa yokku làmb booy xool sax dafa wàññeeku. li daan am bu njëkk ba engouement bi daan am ci làmb xëy na amatu ko mais tey xëy na am na loo xam duñ ci mën a sore ndax ñun ñëpp ay sénégalais la ñu te dañu bokk réew mi mais am na ay lobby aussi yoo xamante ne tey làmb arrangé wu leen nañu waxante dëgg donc ils sont obligés fustiger làmb pour mën a ñoom récupérer sponsor yooyu fii nañu waxante dëgg Sénégal la ñu ne amuñu lu ñuy nëbbante te ñun nag bu ñu demee ba mën a jàkkaarloo caméra yi te duñ leen wax dëgg ah bu yeboo ñu toog suñu kër waaw ndax lu ne def nañ ko ci làmb ji sponsor bu ne indi nañ ko façon cachet bu ne jox nañ ko mbër donc tey mais nag euh, maa ngi lay bëgg a ragal Cheikh xanaa dafa am loo yéeg am na sponsor bu mag boo xam dina dugg ci biir làmb ji diggante waaw te bu soobee yàlla fii nekk suba di ngeen ci am yéen ñëpp lu leer koo xamante ne bu mag a mag la ci làmb bu yoroon làmb ji bu neexee suñu borom dina duggaat ci làmb. am na waaw loolu man maa ko wax. pay-per-view yaa ko fi indi ndax gaa yaa ngi ci gis na ko beneen bi ci des sénégalais yi nee nañu waa foo nga limi pay per bi nga fi dugal ku jóg dugal pay-per-view kenn mënatul seetaan làmb mel na ni sax moom bi amoon ci làmb est-ce que tey amuloo tuuti regret sax ci li fi dugal pay per view waaw Malick euh, regret moom am naa ko moom ci pay per honnêtement bu dee dëgg rek laay wax parce que ku ne sa aqulaayu taalaa ngay wax pay per view li ma ci dugal dama xool ay xale sénégalais muy euh, mon fils Ibrahima Faye Beuz ñëw jóge Canada yor projet bu baax dëgg yàlla bi mu ñëwee itam ma adopté projet boobu ànd ci ak moom ñu liggéey ko mu doon xale bu jàmbaare xale bu am jom am fulla am fit donc euh, ma jàppale ko ci Balla Gaye 2 ak Gris ñu ànd ci liggéey ci pay bi pay per waxuma ne baaxul déedéet au contraire waxuma ne baaxul mais dama ne man damay regretter parce que lu rey làmb pay per ci la bokk parce que pay-per-view mun na jox peut-être promoteur xaalis mais problème bi mooy làmb engouement bi mu amoon pay-per-view da koy wàññi ndax je me souviens ñun bi ñuy tëgg ay Tyson Mor Fadam ay Yékini Balla ay euh, Modou Lo mi Balla Gaye boobu jamono engouement bi amoon grand place yi nga gis euh, ay famille entière yoom dañuy joge dëkk dëkk jënd ay xar jënd togg ceebu jën Malick mi dëkk ngaay seen waa dëkk mu dem fa weekend bi ak yooyu yooyu ay mbir la woon yoo xam ne gisatuma ko man ci làmb donc loolu xëy na li doon xëcc nit ñi ci làmb sax xëy na mun na leen frustré dans leur subconscient xëy na du doon conscient sax mais subconscient lay doon ba tax ñoom ñu fustiger làmb donc man bu doon sama sago événement yu mag yu mel nii kenn mënu ko tëgg te amoo partenaire mënul nekk. donc état moo war a jël ay responsabilité responsabilité mooy lan mooy xam ne réew mi sama réew la man la ñu fal man lañ fi teg te réew mi li ma bëgg mooy ñu bég donc ñu xool ay euh, façon yi nga xamante ne mën nañ ko def ndax état quand même bu bëggee jël événement yu mel nii may ko sénégale yi mun na am ay pexe yoo xam ne bu ko defee mën na may Sénégalais yi événement yu mel nii bu leen ko mayee seen xo ñëpp seet ku ne Fongolemi ku ne Dindi Felo ku ne Fouta diaspora yi ñëpp seetaan ko bi bu ñu xëyee ñëpp di ci débat ñëpp di ci wax làmb dellu siwaat fi mu nekkoon pay per view nag bañu ma ko am na yenn événement yoo xamante ne xëy na du am yenn envergure yi mun nañ ko def pay per mais je pense que pay per baax na torop torop trop ci làmb mais man de pour man sama akulaayu taalaa rek lay wax eh, lu rey làmb pay ci la bokk. am nga ci pay per ci li mu léegi xam nga lan la xaar ci sa diggante ak moom ci combat Modou Lo ak Eumeu Sène seen collaboration fan la yem bu dee partenaire. Modou Lo Ama Baldé Ama Baldé bu dee partenaire dafa am bu fekkente ne partenaire dafa am sa collaboration moom da nga koy arrêté. offrir Sénégalais yi combat bi wala lan xaar ci loolu Modou léegi moo tax. di ko songee ci signature de contrat mu dellu ginnaaw voilà parce que bëri nga combat bu bëri coow bu nekk te combat bu nekk signature yi muy bëri bëri bëri coow yaay jiitu li coow li di bëri nañ la xeer fu ne yaay jiitu mais keroog dañ laa sànni xeer nga dëpp lu ko waral expérience la wala hmm. euh, question bi c'est très pertinent wax dëgg yàlla boo seetoo ci sama biir discours nee naa ne fustige wu ma pay-per-view ne baaxul lu baax ci làmb la mais man dama gëm ne lu rey làmb la yi nag ñoo fi tax a toog ak euh, amateurs yi ak askan bi lépp lu ma mën a def pour bégal leen incha allah dinaa ko def ndax nag Modou euh, bare na ñoo xamante ne ci population bi la bokk bugguma dugg ci détail du ma ci dugg itam mais mënuñu accéder ci internet parce que fa ñu ne moo tax te ñooñu dañoo jar a xalaat. c'est la majorité. ndax ci askan bi lañu bokk. man bu doon sama sago télé yëpp wane ko en direct ku ne woon la nga mënee nag waxuma jël signal di joxe ku ne wane sa direct bopp li nga mënee waaw man bu doon sama sago noonu lay demee affaire bi xumb mel ni mu meloon bu njëkk ba am engouement te yow wóor na la wóor. yaa ngi may poser question mais xam nga ne loolu mooy dëgg te looloo wara am yow xam nga loolu. ndax internet am na ñu bari ñoo xam ne yoruñu télé nouvelle génération donc seen téléphone rek lañ ko mën a seetaan te téléphone tuuti na tuuti boo xamante ne di ko téye pendant quatre heures de temps di ko xool nii neexul te ñaata nit ñoo ci mën a xool donc man foofu laay waxee mais dama signé contrat parce que dama jël alal bu bare def ko ci làmb ji donc foog ma wut ay pexe yoo xamante ne ñoo ma ciy génne. waaye bu ma gisee pexe bu gën a neex ma jaar ci boobu loolu rek la. Mhm. jërëjëf ah Modou Boye c'est waaw euh, Lamine question bi dafa mel ni sànq sax tontu naa ko <coughs> waxuma ne ba léegi pay per view baaxul ci làmb déedéet waxuma loolu de dafa mel ni dégguloo li ma wax boo dégluwaatee peut-être li ma wax sànq di nga comprendre dama ne pay per view. li yàq làmb ci la bokk engouement bi làmb amoon pay per view baax na ci làmb parce que nit ñaa ngi ciy gis seen bopp mais baaxul ci benn côté lu la wax dafa laaj dégg-dégg baaxul ci benn côté mooy am na ñoo xamante ne ñu bare mënuñu accéder ci pay per view donc engouement bi làmb amoon bu njëkk ba xëy na tey booy xool moo tax tey euh, am na mag yu bare ay classe Malick Thiandoum yii xëy na léegi sax sax nit wax na ne la Malick Thiandoum làmb da koo dépassé da nga koy dégg léeg-léeg Malick Thiandoum lamb dépassé na ko Bekay Mbaye lamb dépassé na ko. parce que xale yi ci réseaux sociaux yi la ñuy ne. réseaux sociaux yi la ñuy ne man côté boobu lay waxee waxuma ne baaxul parce que fii may wax ak yow. yaa ngi wax xëy na juumoo yow yaa ngi juum lamit man Ibrahima sama doom la ban juumoo moo am sama digganteeg Beuz Pro. déet ñàkk déggoo ban ñàkk déggoo moo ci am. amul ben ñàkk déggo question réponse waaw loolu rek la euh, Lamine. yéen xam nga ne yéen ñëpp wax dëgg yàlla samay loxo ngeen jaar bu dee yàlla dëgg rek la bëgg samay loxo ngeen jaar Lutte TV ba egsi tey fi ngeen egsi bu dee yàlla dëgg rek la bëgg donc Ibrahima tey li ma koy ñaanal yàlla man naa ci jiitu lépp lu ma ko ñaanal rek yàlla naa ci jiitu man waxeewuma fi ngeen di waxee man waxuma côté boobu dama bëgg wax ne làmb pour mu dellu siwaat mun nañ def pay per view def ko diaspora paye Sénégal brouillé diaspora ba nga xamante ne ñoom dañuy fay mais Sénégal ñu may leen ko parce que ñi ginnaaw loolu mooy dooleelaat làmb ba mu eggaat fi mu eggoon mais waxuma ne damay bàyyi pay per view de làmb bii di ñëw sa xanaa moo bës mën na ko def làmb bii di ñëw nii nii nii waxuma ne baaxul mais fi may wax mooy day wàññi doole làmb foofu rek laay waxee. si vous avez de grands sponsors. Hmm? si vous avez de grands sponsors état dugal ci dootu ko jar. ah déedéet dootu ko jar bu boobaa nag diaspora bi nga xamante ne ñoom am nañu yaakaar ne xëy na tey ñoom euh, am nañu moyen bu ñu jëndee làmb ñoom ñu jënd ko. mais biir Sénégal parce que foofu connexion xam nga ne ko ne bitim réew connexion jaaxalu la muy France di feneen di feneen ak feneen. mais tey fi nga xamante ne tey boo demee yenn coin reculé yi même bu fa connexion amee xëy na amuñu moyen tey jënd paas cinq mille francs pour seetaan cinq mille francs nañu waxante dëgg ah am na ñoo xamante ne duñ ko yor di ko jël waxuma ne ñu ko mais duñ ko jël di ko def ci paas donc ñooñu tey nañ leen xalaat am na ñoo xamante ne tey fa ñu ne internet accédé wu fa loolu foofu laay waxee Lamine. c'est la majorité. foofu rek laay waxee waxewu ma feneen. mais làmb ji exclure ma ci pay per view de liggéey ak bër sax exclure ma ko déedéet mais problème bi mooy fi may waxee mooy engouement làmb bi ñu soxla woon am na loo xamante ne pay per view téye na ko ci. wàññi na ko bu baax te dama koy dégg ah, ci journal yu bare ba ci jamaïcain ba ne taxaw keroog moom ma koy wax. na ma yéen mag yi làmb da leen a weesu. bokkatuñu voilà mu ngi noonu bare na dëkk yu wax ne bokkatuñu ci làmb. yow fa nga jógee Lamine fa nga cosaanoo tey tey tey ah looro yow xam nga ne tey boo xoolee sur dix personnes benn mooy jënd connexion a ah, foofu rek laay waxee. <laughs>